mbokk yi dal leen ak jàmm libération xëy ay révélation si cocaïne bi nga xam ne teg nañ ko loxo foofu si diwaanu cité mixta naan sa côté boobu le trafic am na ay jigéen yoo xamante ni bi ñoom lañ doon forcé ñu jaay seen bopp mu ngi naan ñett lañu umu Fatou ak Adja ñoom ñii dañ doon tëdd ak ay góor yoo xam te ni bii seen i client lan te ñoom si internet bi rek la ñuy wootee ko doon def bi la trafic nag buñ sukkandikoo si yéenekaay bi mu ngay wuyoo si turu Ousmane Sarr yéenekaay bi di yaatal bu baax a baax géej ni mu demee si benn apartement boo xamante ni bii moo nekk si diwaanu Nord Foire ñu mën koo jàng lu mu gën a yaatoo si xëtub juróomeel si biir yéenekaay di Libération xët bu njëkk l'observateur boo ko xoolee ay jiyee rek nga fay gis ginnaaw bi nga xamante ni bii def na ab enquête boo xam ne moo jëm si soxna yi nga xamante ni bii ñoo di ay soxna yu tàkk der mu ngi naan nag ñoom ñi ay secret dëgg dafa am ci ni nga xamante ni bii daanaka ñoom ñu bëri dañ fay wann loro maanaam soxna yooyu ab ëmb da leen a yomb gone yu jigéenu Sénégal ëmb yomb na leen ginnaaw rapport boo xamante ni bii l'observateur xëy na ko fësal ci xëtamu njëkk boo xam ne moo jëm si wàllum genre fii si réewum Sénégal rapport boobu li xam ne naan lool si réewum Sénégal gone yu jigéen ne seen at ñu ngi tolli fukk ak juróom jàpp fukk at ak juróom ñeent li nga xam ne nag yéene encadré na ko en rouge nekk na scandale dëgg boo xam ne moom la ko tuddee ginnaaw boo xam te ne bii benn waaye jàpp na jigéen goo xam ne xel ma dafa sutante daal koy séquestré nekk ak moom lu toll ak ayu bés maanaam di séq ak moom ndax war ñoo wut saafara nag si jéey yi nga xam ne ñu ngi koy teggoon ak jigéen yi Sud Quotidien moom mu ngi xëy si projet de loi bi nga xamante ni bi moo jëm si criminalisation li nga xam ne moo di viol ak juriste yu jigéen yi nga xam ne jamono ji ñu ngi mer ba fut naan dafa am scandale dëgg nag si boobule projet maanaam niñ ko war waroon doxalee dëgg-dëgg nag dafa am ay sooxe yoo xam ne moo si am les échos mel ni ku leen di dalal naan nguuru Sénégal am na yéene teg daan yu méttee ñi nga xamante ni bi ñooy def jëf yi ñaaw yooyu yi bàyyi ñoo ak seen i musiba fekk fa ki nga xam ne moo di musa Baldé mi nga xam ne mooy di ministre bi yor wàllum agriculture fii si réewum Sénégal moom mu nga yéey di yàbbi nag si coow li nga xam ne moom la ñu joxee jiw yi ginnaaw bi nga xam ne Moustapha Cissé Lo indi na si ay révélation moom si boppam nag mu ngay xool li nga xam ne moom la jàpp ne buñ ko defee dina saafara mbir mi mu ngi naan si atum 2020 benn quota boo xam ne dinañ ko jox gros producteurs yi ñëpp dinañ tënku seen benn boo xamante ne bii faaw nga wuti intra si biir yi ngir mën a jot si semence yi moom président Macky Sall ñu fekk si biir l'observateur yéene bi naan dafa mer ba futt jamono ji mer responsable yi nga xam ne ñoo nekk si biir secteur énergie ak tekki tekkaaleel gi nga xam ne moom la amee jamono ji nga xamante ni bii daa jàpp ne bu ñu leeraloon li nga xam ne moo waral ñu yokk li nga xam ne moo di courant bi xët-xët loo gi dina wàññeeku fii si biir réew mi waaye moom jàpp na ne communication bi ñu si amal dafa des lool ba léegi yéene kaay bi di wax ñi nga xam ne ñoo di nguur gi nag naru ñoo bàyyeeg ñi nga ne ñoo di collectif ñu def leen neex maanaam dinañu amal li ñuy wax contre offensive ki nga xamante ni bii mu ngi leen jàppal tànk si wàllu moo di Souleymane Yeni Ndiaye si biir yéenekaay bi mu ngi naan état wërta dellu ginnaaw benn yoon dafa war a jàmmaarloog ñi nga xamante ni bi ñooy def ay musiba rëq seen digg boo ko jaree ki ñu rëq ndigam si biir gouvernement bi moo di Anta Sarr Diako moom dàq nañ ko si délégation générale à la protection sociale bi nga xam ne moom la jiite woon moom nag yéenekaay bi di source anaan la ko fa jëlee moo di rapport bi nga xam ne ARMP amal na ko ak scandale xam ne tudd nañ ko ne toll na si juróom-ñett téeméeri tonnes yoo xamante ni bi scandale lañ ko jàppee li ñu jàppee scandale ñoom waa collectif ñoo lànk ñoo beñ nag ba tax ñuy wàcc si mbedd yi artu ngir yokkute courant bi dafa mel ni naruñu see weet le quotidien di xibaar naan kuréel gi nga xam ne moo ëmb syndicat yi fii si biir réewum Sénégal yépp nag nar nañoo wàll si si boobu lay xeex CNTS UNSAS CSA CNTS FC ñoom ñëpp nag ñi ngay woo ñi nga xam ne ñoo di travailleurs yi si li nga xam ne moom la ñuy mobilisation maanaam ñu daal di xeex ngir yokk courant bi courant bi ñi koy joxe fii si réewum Sénégal di Sénélec enquête yéen mu ngay xëy nag di enquête si li nga xamante ni bii noonu la yore woon googule kër rawatina jamono yi Mamadou Makhtar Cissé moom mu ngi naan am na ay dëgg waaye am na ay kàcc yoo xam ne fës na si moom ma fa nekkoon njiital rek njiital këru tas xibaar yi ku nekk ngay ràcc jëmale sa boor buñ sukkandikoo ci libération moom mi ngi naan nag jamono jii daa mel ni ñoom ñii dañoo nekk ci guerre sondage ku nekk naan mën a mën a maa jiitu te maa man mel ni ab guerre boo xam ne ñu ngi ci nekk ku nekk it di fëgg dënnam jamono joojee enquête yéen kaay naan ku nekk na doxinu ko neexee waaye groupe bii di e Invest moom mu ngay dox doxin woo xam te bii moom la sénégalais nag di teggi tàgg teg morom ja te daanaka bu doon nit la ñu ne ab liir la ndax ci at képp lay toll waaye mu ngay doxee ni mu mënee jiraam di dox ba jamono ji mu ngay daw mel ni ku naan toq a toq gën yu reet jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah